j'avais j'avais deux projets benn bi c'était un projet politique mm-hmm. donc je m'étais dit que dama war a dem ci askan bi sensibiliser leen mm-hmm. donc j'avais créé un mouvement avec des amis mm-hmm. le mouvement s'appelait la solution pour revenir fi doon wax léegi pour qu'à pas proposer des solutions alternatives pour que ñeneen ñi mën si jàppandu pour mën a def dara lu concret euh, wala ñu commencé loolu ñu commencé def woo nit ñi ci que ne mën nañoo liggéey tekki Sénégal hmm. mën nañ mën nga teg sa projet ba suñu slogan c'était base zéro que ne nit ki à partir de rien rien que le fait de savoir que ne tu n'as rien mais tu veux aller quelque part hmm. am nga avant am nga départ donc ba ñu duggee ci politique bon j'avais deux projet politique ak sama projet société li nga xam ne moom laa bëggoon a jaay muy nettoyage industriel donc mais au fait mhm. benn bon du ma ko wax erreur mais lenn laa fàtte def mooy xalaat si ñoom ñaar ban laa si waroon a njëkk a def donc ma mhm. jël politique dem di wax nit ñi que ne mën ngeen liggéey si dëkk bi mën ngeen tekk fii mën ngeen commencer à partir de rien mhm. mën ngeen def ndànk brique par brique ngeen monter seen yëfi bopp donc ba ma koy wax tamit ci laa xam ne euh, man duma politicien aussi parce que la réalité du terrain m'a montré autre chose nit ñi mm. da ngay dem si ñoom ñu ngi xalaat en retour mm-hmm. lan lañ si mën a am mm-hmm. loolu mooy jikko sénégalais mm-hmm. donc ñun suñu suñu njiit yi am nañ seen ay défauts mais askan bi ci boppam tamit bëri nañ ay défauts yu ñuy traîner yu mel ni tey da ngay mën nga ñëw parce que au début ñoom Serigne Touba yëpp seen la kàllaama la ñu ron di wax ak askan bi change fi changer fi lu bëri mais tey pour wax ak askan bi dafa difficile parce que ki ngay waxal ci boppam moom mi nga xalaat en retour lan la si war a mën a jël warul xalaat ne ah man war naa mën a bokk si liggéey bi jéem a soppi réew mi jéem a may jeune chance jeunes yi chance. pour que ñu mhm. mën a bâtir seen ay empire. Mhm. donc après comme ça a pas marché ma commencé sama projet de nettoyage maa ngi commencé mais nettoyage bi ngi ko defee ci nettoyage automobile mhm. li gën a tax ma def ko parce que avant. dama doon liggéey ak sama famille nekk gérant de station mun xam lépp luy métier wu station d'essence donc yaa a moment ma ñëw gisante góor gi ne ko vraiment jàngal nga ma xam naa et tout mais je veux vraiment dem def sama yëfi bopp. Mhm. ci laa ñëw Dakar jóge mhm. Thiès. ba mu ñëwee Dakar sama fond bi ma indi woon as tuut yàlla def. lu ma gis dugg ci investir fii dugg fii jënd lii def lii def lii lépp lépp dara marché aussi mm-hmm. jël naa xorom yóbbu Côte d'Ivoire <laughs> di ko jëndee Fatick ak Lac dem ba ci biir affaire yi marché wul ma bàyyiwaat dem naa mm-hmm. Colobane jënd ay balu fëgg jaay ay balu drap balu mm-hmm. napp defar fóot paase ah, jaay ñu leb na ko <laughs> Sénégal ah, ñi ma fay ak as néew ma ko fayee j'arrivais même pas à. boole sam boobu noonu. donc ma essayé loolu jàllul. y a arrivé un moment bu nga xam ne vraiment c'était très difficile. Mhm. amoon naa benn euh, oto amatuma sax fu ma dëkk si oto bi laa doon fanaan. fii si biir Dakar parce que vraiment comme dama tàgg woon Thiès ne damay ñëw Dakar wutal sama bopp. Mhm. Euh, mënatuma dellu sama ngor mënatuma ma dellu. donc ci laa ci laa ci laa toogee muñ ko di di fanaan ci oto bi di fanaan ci oto bi ba un jour ma am benn proposition benn chambre bu ñu doon loué ma jël ko. waaw mhm. c'est c'est c'était mhm. en c'était mille 2013. donc ci laa jël chambre bi nekk fa et tout def samay activité di dem ak ñëw di yéeg ak daanu muy métti mais j'avais juste un projet. Mmh. un projet boo xam ne je l'ai des années. xam naa fan laa war a commencé xam naa fan laa war a yegg. donc sama projet li ko gënoon a motiver mooy def lu gën a banal Sénégal li gën a banal mais def ko ba réussir ci ba nga xam ne tey ki gën a ki gën a ki gën a suufee Sénégal ki gën a ñàkk Sénégal. Mm-hmm. su ma gisee dina peut-être jël exemple si man. Mm-hmm. donc je me suis raxas oto gérant laa jóge am sama bureau yépp bàyyi ko un jour ma génn commencé jël sama siwo sama boros lépp ndox barigo ndox 1000 francs <laughs> c'est comment si boobu moo lay reetaan la ndeysaan alhamdulilah sant yàlla de boo toogee jour boobu je me compte que ba ma wàccee mhm. euh, am naa soixante mille soixante six mille ah 66 000 fekk ne jëloon naa ñaari ñaari booy Momadou ak Modou ak Yoro. Mhm. ñu liggéey j'ai on a eu 66 000. ma ne waaw mais maa ngi toog di am problème mu 10 pendant un mois alors que physiquement sama physique. Mhm. mën naa ko utiliser pour am 60 000. Mhm. par jour en plus. le lendemain je suis liggéeyaat ba wàcc amaat 60 000. nekk 120 000. commencé maa ngi amoon sama benn maire mu amoon benn lavage si presse si wetu juma Abba Sall bi. Mhm. Thiané ñaw maa ngi koy saluer de passage. benn jour mu ñëwoon di raxas sama oto mu ne ma sama doom man sonn naa fii quoi en deux semaines je peux même pas avoir quinze mille francs je dis ah ouais. Mhm. est ce que doo ñëw ma jox la fii nga liggéey fii etu tout. ma ko man lii laa bind projet quoi. Mhm. bon ma ne ko ok naa essayé. ma commencé fa liggéey affaire bi commencé di dox. boole si appartement nettoyage appartement di loué waale ay oto et tout. Mm-hmm. di fa liggéey ma employé dem ba dix. ma jóge woon si deux. dem ba dix dem ba dix un bon jour ma toog nii ñëw di liggéey si toog gis ñaari pique bu gendarmerie yu yeb ba fees en 2013. Mm -hmm. ñu ñëw laajte kan moo kan moo nekk fii nii ñu ne ñu ne leen ñu joxañ ma leen waaye ji ñëw ne ma yow yow yaa nekk fii noo tudd ma ne ko maa ngi tudd Serigne Ali mu ne ma yow lañ jël si quoi jël si mu ne ma waaw <laughs> ay bëre ko non bon quand je boo gisee remarqué ne que c'était deux pick-up de gendarmerie je me suis dit ma ne ko mais est-ce que ñii ñëpp pour man lañ ñëw mm-hmm. ñu ne ma waaw ma ne ko non gaa boo ma woon téléphone ma ñëw mm-hmm. donc bon après ñu on est parti à la Descos wax wax foofu terrain bi c'était pas du sama terrain dañ ma ko joxoon ma fay activi ma fay def sama activité et mm-hmm. te ki ma ko jox tamit dañ ko ko joxoon et mm-hmm. mais si si jour boobu noonu vraiment si lañ toj lépp. jaxas si lépp bale sax mujj ma ko jëlee yow ma ko fa. Hmm? si même jour bi ma am ay dettes parce que am naa war naa leen fay. Mm-hmm. am naa yu ay charges yu ma jotoon a entamé et tout quoi tu vois. mi ngi waaj a ñëw. ñu toj lépp jaxase. bon fekkee wu ma toj bi ndax je ne pouvais pas supporter et tout ma dem nekkaat ci 2013 2014 ma rencontré euh, Barthélémy par le biais d'un de mes amis c'est un mm. oncle mais c'est un ami donc mm-hmm. qui a qui a Ndiogou Thiendella qui a mm-hmm. qui m'a beaucoup aidé mm-hmm. pendant tout mon parcours vraiment il m'a beaucoup aidé à arriver là où je suis arrivé maintenant donc ñu dem Thiendella nga wax de. Thiendella Fall waay. bokkul ak bi. non non non non. Hmm. bon peut-être ay mbokk lañ. bu dee <laughs> voilà. Ndiogou Thiendella Fall vraiment je l'ai connu au Maroc. Hmm. aussi ñoo tamit def nga Maroc. man tamit def naa Maroc. Hmm. def naa depuis 2004 euh, laa njëkk dem Maroc. ok ba ma demee Maroc j'ai vu l'ambiance et tout mais man mosuma bëgg a takkee feneen pour aussi Sénégal. Sénégal donc bañ defee loolu yëpp bon dinaa wax lu bari nag parce que li ma war li tax ma ñëw fii. mooy que ne dama war a wax je me je me sens que ne dama war a wax au fait. Mm-hmm. ba ma defee loolu yëpp ma dem si Barthélémy Diaz et tout ñu waxtaan gisee et tout waxtaan mu ni ñu ne ma moom au moins defoon na benn benn affaire nee na ku bëggati espace ciblé espace bi. Mm-hmm. fayal temps su commune bi. Mm-hmm. ñu jox la temps boobu noonu c' était un million moo de pas de pas de porte. pas d' entrée day jox un million. bañ ma ko waxee ma xam ko et tout bon j'avais écrit une lettre adressée au maire et cetera ba ma xamee pas de porte bi ma koy fay cinquante mille cent mille cent cinquante mille ñu may defal ay bons yu ndaw quoi. ba ba mu matee un million si lañ ma soog a jox bordereau bi de versement bi après ñu jox ma. Mm-hmm. titre d'autorisation bi. pour euh, d'occupation bi. Mm-hmm. ma dem téye titre boobu après ma dégg ne AGEROUTE na nii dama war a am seen autorisation. et tout quoi écrit une lettre aussi. ma mm-hmm. envoyé ko AGEROUTE. yàlla dafa def nag que ni mosuma envoyé nit lettre te def ma awma décharge mhm. ma envoyé lettre à Géroute bon mairie bi jox nañ ma fii man sama activité c'était le nettoyage automobile mhm. et industriel mhm. donc dama buggoon xam lan laa war a def fii pour mën a nekk en règle ñoom ñu bind ma ne ma il faut que ma am autorisation wu pour ma nekk foofu noonu il faut que ma am autorisation à euh, ONAS pour mën a exploiter pour l'évacuation des eaux usées mhm. il faut ma ñu dagg tali bi mhm. et mhm. donc bañ ONAS yónnee ma bind ONAS ñu yónnee ma seen euh, seen seen euh, réponse ne ma defal ma devis et si devis bi ñu defal ma devis tranché tranché bi mooy dagg tali bi à quatre cent et quelques mille ba ma ba ma ba ma bon onage devis boobu ñu ma proposé benn société bu tuddoon Mifta la ñoom ñoo ko def mais ba ma delloo si Ageroute ñu ñoom ñu ne ma noo foofu noonu terrain boobu euh, tali boobu benn entreprise rek ñoo am droit dagg ko muy Sotracom Sotracom j'ai j'ai quitté devis wu quatre cent soixante quatorze mille dem deux millions cent vingt quatre mille mais comme mmh. dama bëggoon nekk en règle mmh. ma toog six mois dajale deux millions yi ñëw fay jox ma sama jox ma protocole d'accord yeeg yëpp ma def commencé tabax am 100 briques commencé tabax nekk si nekk si ba 2017 laa njëkk a ubbi commencé liggéey parce que dama ubbi en bon Sénégal comme ni ñuy wax rek revenir damay revenir aat si per lu mu wax léegi administration bi am na ay lenteur te kii tey boo nee da ngay def promotion de l'emploi des jeunes. am na fu bëri fu waroon am lenteur yoo xam ne da ko waroon a da ko war a dindi yombalal ko jeune bi surtout wala mooy doyen doon wax léegi exactement mm-hmm. donc ñi ma gën a indil problème tamit si sama liggéey Ageroute si bokk parce que je peux pas comprendre des textes qui sont là mm-hmm. nga war ko def ab ñu appliquer ko mm-hmm. mais ces textes dafa mel ni ñu koy lëndëmal a lëndëmal a lëndëmal ba kenn du ko mën a def man fi ma nekk bande de terre la bu mat peut-être deux kilomètres maa fa njëkk am ndox mu jaar ci yoon. Mhm. ndox bu jógee SDE. te ñi ma jox S waa e sax xam naa ne tayuñ ko bañ ma koy jox <laughs> peut-être dañ wala dañoo juumu ko waa wala mais xam naa ne am nañ si peut-être ay problème parce que si sama parcours j'ai reçu quatorze fois convocation à la gendarmerie police préfet de Dakar ñëw na ba si foofu noonu pour jëlee ma fa. Mhm. gendarmerie plusieurs fois. quatorze convocations. quatorze plus. en 2013 laa njëkk a jot benn convocation ñu déguerpi ma boobu dem naa. bon jàng naa ci lu bëri ba tax mu wut sama kayit yëpp. ba defe na yaa si nekk. ba defe na yaa si ba chaque année ma recevoir gendarme yi ah. ba ma sonnee si gendarme bi dama yóbbu sama document yëpp. waaw def ci deux fois deux copies jox ko benn. Mhm. mon commandant mu téye benn ma ne ko su ma tourné fii rek tourné foofu may tourné di ko wan. 2014 lu ma def lettre yi ma bind ñi ma ñi ñi ñi ko ñi ko ñi ko ne niñ ma fa jëlee hmm. muy waa Ageroute ci boppam muy gis directeur bi signé di hmm. gis ay protocole d'accord yu Ageroute bind di gis ay Ageroute lettres yu mbind bind muy hmm. tourner di tourner di tourner le gendarme je l'ai revu un jour mu ne ma yow rek yaa ma mun sa jooyloo gendarmerie ba ma fi nekkee ba léegi il est à des DSCOS su ma déggee may wax dina xam li may wax parce que tellement que ne fi ma jaar pour teg sama projet métti na trop. yoon bi gudd na trop. lëndëm na jaxasoo na sa xaalis. loo joxe tey perte naa si lu dul jeex. xam naa nga wax bu dund même su ma gisee sax beneen jeune. Mm-hmm. ak li xew nii tey du ma jaaxal. Mm-hmm. Mm-hmm. suñu bëggee changer. wàññi immigration clandestine bi. il faut tamit ñu toogaat waxtaanaat suñu biir. ñu jiite. xam ne dañoo jiite mm-hmm. te ñu war a orienté mm-hmm. ñu war a waxal ñooñu war a yombalal yoon bi mm-hmm. ba tey képp ku bugg a jóg pour def sa liggéey Sénégal nga mun ko def ci xel bu dal soo yorul moyen nga mun ñu accompagner la wan na yoon bi tette la lebal la sax nga liggéey ba pare fay euh, Ali yaa ngi ci ñaata euh, employé présentement la la j'ai plus de soixante ans soixante quelques employés dëkk mbaar maa ngi nii mbaar mi ah. <laughs> mbaar bi nga fekk na sax mu commencé rafet. Hmm. parce que waa vraiment ndaxte fii nii amuma woon courant quoi boo xoolee. Hmm. dama doon loué groupe électrogène quinze mille francs ci journée bi pour mën a liggéey toute la journée au fait. Hmm. donc euh, lii laa jotoon a def parce que j'avais pas de financement. donc j'étais obligé de fair avec les moyens du bord. ngeen yaa ngi si ñaata employé peut-être 67. doyen. 67. 67 employés ah. waaw. te ku ci nekk di nga ko fay ki gën a tuutile dina laal plus de cinq minimum cent mille.